bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi alamin wa ala alihi wa saxbihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu baarakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum mbokki ñu ñëw si suñu jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee kaay ñu jëfee xadis bi ñu tollu si suñu ñaareel jotaay jotaay bi paase moo nekkoon bi aju si sàmmoon teg sa njàpp ñu indiwoon ci xadis boo xam ne dafay firndeel loolu boo xam ne dafay firndeel loolu tey nag suñu jotaay bi moom mooy kaay ñu dem ci jàkka ji kaay ñu dem ci jàkka ji abu hurayra radiallahu anhu dafay nettali mu jële sént muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu man gada ila al aw raaxa acadda allahu lahu fi ljannati nuzula kullama gada aw raaxa xadis bi alimaam albuxaari solo na ahmad rahimahumullahu jamian solool na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di si mu ne képp koo xam ne dangaa xëy dem si jàkka ji wala nga gontu dem si jàkka ji bi maanaam nga dem si jàkka ji suba wala ngoon xamal ne borom bi waajalal na la wàccuwaay ci aljanna jégalu saa yoo xëyee walla saa yoo gontoo maanaam saa yoo xëyee ngir dem jàkka ji wala nga gontu ngir dem jàkka ji xamal ne borom bi waajalal na la wàccuwaay ci aljanna xamal ne borom bi waaja waajalal na la wàccuwaay ci aljanna te luñ ci jublu comme ni ko boroxoo xam di leerale mooy dem si jàkk ji ngir jaamu yàlla ngir dem si jàkk ji ngir jaamu yàlla lu mel ni euh, julli moo si jiitu wala nga am fa dars boo xam ne dañ koy teewee ak mel noonu kon saa yoo xëyee dem si jàkk ji rek xamal ne borom bi waajalal na la wàccuwaay boo xam ne danga fay wàcc ci aljanna kon loolu mooy ne soo faatoo ci yoon bi yow am nga wàcc waaye fa fa sa borom subhaanahu wa fa aljanna kon loolu nekk loo xam ne lu am solo la lu jar a bàyyi xel rawatina nag julli farata julli mbooloo moom li gën wér si waxi borom yi mooy dafa war si si góor maanaam dafa war a dafa war ci moom mu dem jàkk ji jullee fa fekkee mbooloo mi loolu dafa war Euh, xanaa nga am ngant waaye bul indi ngant yoo xam ne maanaam du ngant dama sonn dama tayal wala dafa sedd déedéet ngant boo xam ne mënta ñàkk moom la ñuy wax ngant boo xam ne mënta ñàkk moom la ñuy wax walla nga am fa dars boo xam ne dañ koy teewee wala mel noonu soxna si nag amaanam wax comme man ban wàll laa am ci xadis bi ñu ne ko bari na bokk na si wàllu wàll yi nga si am mooy fàttali euh, ñi nga nekkal dañu nekk ay góor amaana sa jëkkër mu nekk koo xam ne léegoo-léeg def si def si saggan masalan dafay julli yenn farata yi ci ja ci kër gi wala sax sa waajur bu góor wala sa frère wala sa doom bi nga xam ne moom yow ko war a yar ñooñu nga leen di soññi nga leen di woo nga leen di fàttali euh, ngeneelu dem si jàkka ji fu mu nekk nii gis nga kii nii dafa dem jàkka ji rek même fekkee ne tey demul ngir julli mais beneen jaam yàlla moo ko fa yóbbu lu mel ni teewee dars borom bi da koy waajalal wàccuwaay ci aljanna kon su ne julli farata nag dafay gën a baax dafay gën a yëkkati ko noonu itam euh, sa wàll yow soxna si xadis bi mooy yow si jëm bopp masalan su fekkente ne da nga fa am waxtaan ci euh, jàkka ji xëy benn conférence bu ñuy def wala ay dars yoo xam ne ñu ngi koy def si da si jàkka ji nga bëgg ko teewe wala dangaa dem juma wala dangaa wax ne tey de dama bëgg dem julli ji jàkka ji loolu itam lépp sa tiyaaba waaye yow si jëm bopp sax nag yow soxna si am nga jàkk boo xam ne moo ngi si sa kër mooy fi nga fi nga xam ne foofu ngay jullee say farata mooy ne yow saa yu heure julli jotee góor ñi dem nañ jàkka ji yow suñ noddee ngir góor ñi wuyu ji yow tamit demal si sa jàkk bi maanaam place bi nga xam ne foofu ngay jullee sa nga jullee fa kon am nga si wàll bu mag a mag yoo soxna si itam waaye la chaque ki si gën a am wàll may ku ki nga xam ne moom dafa war ci moom mu teew si jàkka ji ngir jullee jullee foofu kon lii mooy suñu fàttali tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp mu yombalal ñu bañ muñ ko jëfee si anam bi xam ne moom la ko borom bi gërëmee subhanahu wa barakallahu fiikum ahsanallahu ileykum asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu